asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñoo ngi yëkkati kàddu yu nuyoo yu bàyyi ko ci Cheikh Mouhamadou Bachir ibnu Cheikh Abdoul Khadir Mbacke mi nga xam ne daje bi moom la ko Sëriñ Tuubaa Cheikh Mouhamadul Muntaxa la fi yàgg lool te ànd ko santoon yetti yu ne mu daje ak chef de village yi ci dëkk bi Cheikh Mamadou Bachir nag woote bi bi mu déggee sëriñ bi te xam ak jubloo tax mu ne nañu ko yaatal ba ñi nga xam ne kuréel yi ñu yor dëkk bi kese rek moo ko tax a jóg ak lu jëm ci waa dëkk bi ñu di leen ci boole ndax day mel ne seenu liggéey ak boobu chef de village yi ñoo yem moo tax mu wootelu chef de village yëpp ñëw daje fi ànd ak maire bi nga xam ne moo jiite dëkk bi di Serigne waaye waale it sous nga xam ne moo fi teewu di ndawul état bi mu dolli ci gis ngeen ne ci woote bi tey jii am na tuuti ak dolliku waaye amutul coppat gis ngeen suñ bokk yi di waa daayira Hizbut Tarqiyyah seen taxawaay ci dëkk bi ak Serigne Mouhamadul Mountakha gunge biñ koy gunge ci liggéey bi te lépp diñ koy dëppale ak jamono di ko gën a jaarale ci aw yoon Serigne bi ne woon nañ ci woo moo tax gis ngeen bi ngeen ñëwee woote mu njëkk wa wa wuute na lool ak wuute nu wuute nu léegi wi ñu boole ci yëpp kuréel bu mel ne Muxaddamatul Xidma ku ne xam na ne fi ñu nekk dëkk bépp lañ fa nekkal waaye yoon yëpp lañ fa nekkal boole ci lu mel ne Rawdu Rayaahiin ku ne xam ne ñoom it seen taxawaay yoonu murid yëpp lañ taxawal waaye boole ci lu mel ne daayira Nuuru Daarayni Tuubaa ca kanam ñoom it xam ne ne seenu yëngutu lépp yoon yëpp la ñeel boole ci lu mel ne Safinatul Amaan ak Quddaamul Xadiim yaakaar naa ne kuréel yi buñ leen tuddee danañ mën a xam ne war nañoo mën a ànd ak chef de village yi ci liggéeyu dëkk bi di Touba bi ñu wuy seen sëriñ bi dafa bëgg ñu njëkk jox kàddu gi sëriñ Youssou Diop mi nga xam ne ay ndawam jiitu woon nañ fi ànd ak jëmmam mbooleen ku fi ñëw ñu bind saw tur jox la aw kayit wu màndargaal ne wuy si nga su ko defee mu liir liste boobu ci kanam sëriñ bi bokk ci manque bi te ñëw mën a yëg lu ne ñëw naa waaye jaaru bindu ma su noppee danañ jox sëriñ Abdou Lahad Ka sëriñ bi dolli ci it ne loolu sëriñ bi wax ne daa am lu dolliku ci liggéey bi waaye du ak soppat muy teew waa daayira bu tarxiya nee na ba ñu ñëwee dañ ne bi lépp lu jëm ci teraanga ji rek nañ ñu ko bàyyee ku ne xam ne ne yàgg nañu jëf teraanga jëme ko ci gani sëriñ Tuubaa yi kon teraanga jëpp it ñoo ko def ñu noppee danañ jox kàddu gi monsieur le maire Cheikh Abdoul Ahad Ka mu dalal chef de village yi yëkkati ay kàddu suñu noppee ndigal bi ci sëriñ bi ñu wóyal loola kon ñu maase déglu sëriñ Youssou. ci ndigal sëriñ bi dañoo def benn dakk yi ci kër gi boo xamante ne ñi jot a ñëw ci chef de village yi dañ leen di identifier maanaam jël seen tur jox leen carte loolu jubluwuñ ci dara lu dul rek. jataay bi ñu xam ne kilifa gu toll nii sëriñ bi bu woowee njabootam ñamu ñoo war a ñëw toog déglu bu digal leen ñoon ña ñuy lif ñu dem jottali leen loolu waaye su fekkente ne salle bi ñëpp dañuy mën a duggandoog chef de village yi loolu day mel ni euh, la taxoon jóg jataay bi dina ci am gàllankoor loolu moo tax lañ ñu ci doon liggéeyloo loolu def nañ ko ci euh, kon bu dee jannatul euh, ni ñu jëlee nag itam ñoo xam ne ni ñu dikkee rek lañ ko jëlee waaye jiitaluñu ne si village bi lañuy jëkk a tudd teg ci village bi kon kenn ku ci ne na mu dikkee noonu lañu jëlee noonu nga xam ne ak ñenn ñi ci ñuy àndal kon Serigne Saliou Diouf teew na bu Jannatul Mahwa euh, sëñ Saliou Dieng waaw ak sëñ Cheikh Sylla bu Touba Mbal sëñ Saliou Ndiaye Touba Jannatul Mahwa ak sëñ Saliou Sylla ba tey Touba Jannatul Mahwa Touba Alieu sëñ Lamine Guèye Touba Alieu ba tey ànd naa ku ñu wax Mouhamadou Seck sëñ Moustapha Dieng Bodde de bu dee sëñ Modou Ndiaye Touba Bogo sëñ Amsadou Diakhaté kon moom bu fekkonte ne lu ñuy toftale defe naa moom la ñuy jëkk tudd waaye nañu xam ne feuille de présence la rek kon ñu nangul ñu ko noonu kon sëñ Amsadou Diakhaté tamit teew na Touba Mosquée sëñ Cheikh Sylla moom tamit Touba Mosquée la ak sëñ Souley Badiane Touba Mosquée Kayre Ndaw sëñ Moodu Ndaw bu dee daaru mën naan sëñ Ibrahima Diagne Cissé sëñ Ibrahima Cissé bu dee sëñ Baara Bousoy teew na daaru Minam 1 bu dee sëñ Saliou Dieng Buxatul Mubaarak ba tey mu Mubaarak sëñ Góora Seck Bangaaj 1 sëñ Dame Diagne mbag sëñ Mortala Samb ci leen sëñ Ndaam Kunja bu dee sëñ Fallou Diop tamit moo teewal Daaru Salaam Diop sëñ Modou Mbacke Lo Daaru Karim euh, la Ndaam Daaru Karim Ndaam bu dee Kër Medoun sëñ euh, sëñ Daaru Ndiaye bu dee sëñ Alika moo teew moo teewal Wuru Jolof waaw. Wuru Jof 1. Wuru bu dee Modou Ndiaye Touba Tawféex bu dee kër Mukumba Keba Cheikh Mbacke Sarr bu dee Touba Tawféex euh, Cheikhul Khadim Silla bu dee Nayde sëñ Basirou Gueye bu dee Thiawén Sanc sëñ Modou Kabir Sakho bu dee Daaru Xuddoos Serigne Cheikh Ndiaye bu dee Nasru Bogo Serigne Moustapha Guèye Daaru Xuddoos Serigne Sawru Ndiaye eh, Serigne Sawru Mbaye moom tamit Daaru Xuddoos Daaru Xuddoos ba tey Serigne Daaru Sow Serigne eh, Sam Serigne Abdou Latif Serigne Modou Mbacké Afe Serigne Issa Niang Yaween eh, Mame Balla Diatara bu dee daar bu dee Daaru Bogo Serigne Bassirou Dieng bu dee sëñ ajjuma ka moom tamit teewal na euh, pof di pof di pël waaw bu dee Amadou Mbisaan Ba euh, teewal na Gilide waaw Gelode waaw kay Gelode dëkk bi ni ñu ko bindee dafa desee leer sëñ Amadou Sow Sourang bu dee Cëlli Faali sëñ El Dem waaw Cëlli nga xam ne sëñ El Hadji Dem moo fi teew sëñ Thierno Gaye moo teew Daaru Rahman bu dee sëñ Modou Mamoun Ndiaye Balla Ndiaye waaw sëñ Mor Diarra Sow moo teew Mbelka euh, sëñ Mourtala Mbacke moom tamit pof di bu dee sëñ Moustapha Lo euh, moom Touba Tindodi bu dee sëriñ Cuun Tawfeex Buso bu dee sëñ Xaadim Samb euh, Bangaaj deux bu dee sëñ amaduloo Lo Gédé Bousso bu dee sëñ Babacar Ndiaye Touba Daaru Guèye bu dee sëñ Mor lii sa joxaane Touba euh, Touba Diaby Bogo bu dee Mayacine Gassama moom Gassama la fi teewal bu dee Amadou Ba ba tey moom Euh, Wuro Jofo 2 bu dee Mamadou Alika Guy Naabe bu dee Guya waaw Guy Naabe bu dee Aliou Ka euh, Guy Guy Naabe ba tey bu dee sëñ euh, sëñ Alaaji bu dee sëñ Aliou Ba Lumbe Lumbe bu dee Seyni Dieng Touba Bagdad bu dee Ibrahima Sarr Touba Mosquée bu dee daam ñang daaru xadim sëñ Abdou Ndiaye tamit daaru xadim sëñ Abdou Wahab Dieng bodde 1 bu dee sëñ Moussa Gueye Touba Kër ñang bu dee dëkk Cissé Touba Kër ñang ba tey bu dee sëñ Fallou Cissé Cissé sëñ Mamadou Ba Samla bu dee euh, sëñ Mbacke Abdourahmane Rawdu Rayahin euh, nga xam ne moom foofu du village waaye kuréel la ak moom sëñ Mor Bousso ñoom ñoo teew bu dee Sam Ka moom moo moom délégué Sam Ka la délégué nga xam ne du chef bu chef du village it délégué am na yenn délégué yoo xam ne ñoom dañoo ànd ak seen kilifa duggaale ci salle bi bu dee caaween sëñ Fallou Sow sëñ Fallou Saaw sëñ Fallou saw mooy caaween waaw bu dee euh, daaru mën naan daaru mën naan géey waaw moom Cheikh Gadiaga seen Cheikh Gadiaga bu dee Daaru Ka Aziz Guèye waaw bu dee Njalaxaar sëñ Assane Ndiaye moom moo teew ba tey Touba HLM la waaw ah. Touba HLM sëñ Sidi ak sëñ Cheikh Diop bu dee Bofel sëñ Maodo Ba ànd ak délégué muy sëñ Moustapha Dem bu dee caaween dikko ndikoo moom sëñ Cheikh Saaw bu dee Mbacke baari euh, Mbacke Bari euh, Taysiir sëñ Mbacke Jabaay bu dee sëñ Cheikh Diop moom mi ngi te mi ngi teewal mairie la bu dee Touba Njaareem sëñ Góora Njaay ba tey foofu la bu dee Touba Ndiliki sëñ Modou Ka bu Touba Daaru Minam sëñ Moustapha Mbacke Bustaan si Abdul Ahad Bousso daf ko tudd ñaari waaw ok accès gu ci kon xam naa rek tuuti ni ñu ko jëlee rek lañ koy euh, mu xaddamatul xidma kon foofu kon ba tey du du village waaye kuréel la si Abdul Ahad Bousso moo teew salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu gannaaw bu ñu santee yàlla julli ci yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam ñu sant Serigne Touba Xaadimu di ñaanal Serigne Muntaxa Mbàkke xaj seen am ngeen bi te wér di ñaanal sama sëriñ sëriñ Sidi Abdoul Ahad miit waral ma taw fii di wax te it mu yàgg fi te ak njabootu sëriñ Tuubaa yépp di nga xam ne moo fi teew tey ngi teewal fi sëriñ Mountakha xaj senaate di nuyu mboolem sa village yi fi teew kenn ku nekk turam ak santam di nuyu monsieur le sous-préfet bu arrondissement Ndam ki nga xam ne moo fi nekkal administration di nuyu kilifa yi nga xam ñu ngi ak Serigne Bassirou Mbacke yëpp kenn ku nekk di la jox ceeb bi la suñu borom jox di nuyu ñëpp ñi nga xam ne teew nañ fi te teewal fi ay ndaje ñoo xam ne kenn ku ci nekk euh, Fallou Gala Sylla tudd na leen ñu ñu kenn ku nekk lay nuyu di la jox maqaama mi la yàlla jox di la dalal di nuyu rek Serigne Bass di ko euh, da nga ci turu sëriñ bi chef du village yi ñoom ñëpp ñëw nañu ah, ci teewaay ak is bu tarxee yi nga xam ne danga ne leen woon nañu ñëw uh, organiser dalal gan ñi te toppatoo leen xéewal yi nga xam ne fu nit mbooloo daj dana ñu koy soxlawoo ah, loolu ñoom it def nañ ko niñ ko war a defee eh, chef du ñëw nañ ah, di presse bi yëpp ñëw nañ waaye di xamal rek ni li dama doon dalal chef du yi di leen ubbil ci li nga xam ne moom la sëriñ bi woote ci turu conseil municipal bu Touba ci ndigalal sëriñ si bi Bakay Abdoul Ahad bi nga xam ne mooy jawriñu sëriñ bi ci wàllu boobu te teg ci bopp bi maa ngi ak conseil municipal yu bari mi ngi fi teew kenn ku ci nekk du jar ma ñu tudd ndax ñi ëpp ci conseil yi ñi ngi dina xamante ne sëriñ bi chef de yi ñëw ci li nga waxal rek nga xam ne fii nga toogoon wax leen ko bi ngeen leen woowee ne leen ñett yu ne dama leen bëgg a woo waxtaan ak yéen leeral fàttali leen digalal sëriñ bi ci doxinu dëkk bi ak ni nga xam ne moom la chef de village war a doxe sax ci chef ak bu demee waxtaan ci ak ay délégué de dafa naa ne loolu woote nga ko bii mooy ñeenteelu ndaje wala ñetteelu ndaje yoo xam ne comme ni nga leen ko waxe woon ñuy sàmmante ak ñoom jamono bu ñu dajee ci commune bi ci leneen loo xam ne joxe nga digal ci ñu woote foofa wax leen ko danañ leen koy fàttali ci anam bu nekk ci ni nga ko waxe woon ci ndigalal sëriñ ci ku nekk xam na nag ci jamono yi ñu toll ci dëkk bi jafe-jafe yu baree baree bari dañ koy faral di dégg ci yenn barab yi ci ay coow yoo xam ne coowal pàkk coowal suuf coowal réserve coowal mbedd boo xam ne nii dafa dem a dem dem ba ñu ngi bëgg jéggi ab daye dafa naa ne loolu ni sëriñ bi xam na ko dégg na ko dana bokk ci li nga xam ne dana ci waxtaan ak yéen gannaaw bu mu leen joxe woon ne leen ñetti weer yu ne danañ daje waxtaan ak yéen yeesal leen digalal sëriñ bi ci fi jamono bi toll ak ni dëkk bi demee ak li nga xam ne aussi mi ngi fi xew ku nekk dégg na ko ku nekk nga ciy wax ah muy loo xam ne nii te lépp sëriñ bee ko moom moo yilif ñëpp mbir ak njaboot nag ak alal ak i barab soo leen yoree dem ba ay mu di ca dégg loo xam ne yaa daawoo ko ci dégg wala mi ngi bëgg a bari daanaa rafet mu woo leen leeral leen li xew ne ngeen xam ne xam na ko lu ci mbir coow rëy rëy rëy rëy dara ump ko ci lu ci coow tuuti tuuti tuuti dara ump ko ci lu barab bu mën a nekk lu mu roqe roqe ak lu mu sore sore dara lëntu ko ci ndax ay ndaw la fi teg barab bu nekk ndaw a nga fa mu teg ay ndaw te liñ ci xam liñ mën li ñuy def rek mooy lu lu lu xew danañ ko ko leeral luñ xam danañ ko ko wax fu dara xewee buñ ci jotee danañ ko jottali moom mi nga xam ne mooy suñ jëw yi te sëriñ bi teg suñ mu doxaa teg ko ci suñ kanam sëñ si di teg ko ci suñ kanam danañ ko ko leeral ba mu xam naka la dem ndax sëriñ Abdou Lahad dem ne woon kilifa da fexe ba mu xam te na muy àttee bu ci sa yoon bi kon nag gannaaw ay ndaw lañ yu ñu fi teg ñuy liggéey di ay taalibi ñu jël ko teg ko ci suñ kanam muy suñ jawri lépp luñ ci xam danañ fexe ba xam ko na muy àttee nag suñ yoon nekkuti ndax ndaw moom bu sàmmee ba jébbal kim doon ki ko doon sàmmaloo wàcc jaanam wàcc na loolu rek moom laa ne woon danañ ko ubbee waxtaan ak yéen dalal leen xamal na leen sëñ bi dana ci ñëw ci chef de village yi danañu ci jox ñett ñoo xam ne kenn ku ci nekk dana dana wax xëy na suñu am surtout dana wax bu noppee danañ jox sëñ Cheikh mu wax bu noppee danañ jox sëñ Moustapha Moussa mu wax loolu defee nag ñu déglu sëriñ bi moom nga xam ne moo ñu woowoon ci ndigal sëñ bi ak message bi nga xam ne moom lañ joxe wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa ba mu wootee dafa bég lool te sant ndax ñi mu woo ñëpp dañoo ñëw amul benn chef de village boo xam jot na la téléphone te ñëwoo bari na ci ñoo xam ne sax ni indaale woon dañoo mujj dellu ngir xam ni jataay bi xajowut lépp kon nag loola bu la nuyoo sant la gërëm la jaarale nuyoo ba ci kilifa yooyu day yëg ndigal ko dugal ci lii ni mu ci dugal mboole sonn na ñi fi ne ñun ñëpp nag bu fekkee ndigal nu boole ci yëf yi kon daan war a mën a déggoo kon am nañ pas-pasu laxasaayu takku tey dégloo te sëriñ bi la nga bëgg na nga ko waxee insha allahu doo gis mukk ne lott nañ wala insha rabbi la urdaha sawa ngi sama ma koo xool kon nuy loolu war nañ caawaangu lu bare bare noo ngi sant ko gërëm tey siyaar tey ba ndox jox asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ñu ngi nuyu Cheikh Mouhamadul Bachir mi nga xam ne nii moo fi doo jot toog jataayu Cheikh Mountakha Serigne Touba Serigne Mountakha di nuyu mbokk yi fi teew yépp daanaka sax xëy ñi njëkk wax li ñu wax moom xawoon naa doy bañ déglu li ñu sëriñ bi wax kon xëy bu joxee kàddu lu gën a taaral jataay bi gën a taaral liggéey bi rek lañ ci jublu kon nag ñu ngi sant mbokk yëpp ci wuy ji gi nga xam wuy si gi nga xam ne wuy si nañ ko sëriñ bi xëy na nag lenn rek xamaguma nag lu sëriñ bi digle ca lu mu digle rek loolu ca fas yéenee taxaw suñ kemt lay kàttan ba loola am waaye nag dafa am loo xam ne nii gannaaw bañ nuyoo sous-préfet nga xam ne moo fi teewal administration bi di nuyu monsieur le maire mi nga xam ne nii moo yor di saytu dëkk bi ànd ko chef de village yi dafa am rek loo xam ne monsieur le da ko souligné mu tuddaale ko ci biir mu muy ci suuf si loolu nag xëy na dañ wax rek li nga xam ne jàpp nañ ne xëy na buñ ko boolee ci liggéey bi ak bu sëriñ bi joxee digal ba noppi nu ñuy def ba saytu ko ndax nañ ko def bu ci nekk nañ ko waxtaanee da koy jiitu kon nag loolu moom lii ci am rek mooy dëkki moom ñaari cër la yoo xam ne nii buñ ko boolee day daal di doonaat benn ci sëriñ bi wante ci wàllu administration ñaari mbir la muy li nga xam ne moo ci aju ci titre foncier bi ak li nga xam ne nii moo ci aju ci génn titre foncier bi wante loolu it lu ci nit ci nekk sëriñ bee yilif ko ko yilif bi la ciy dégg kon nañ seet loola gannaaw buñ xamee jublu sëriñ bi loolu lépp nuñ koy nosee ndax alhamdulilah am na ci loo xam ne nii ca gannaaw mel na ni Cheikh Bassirou ànd na ko njaboot yëpp bañ def ko ca lu am solo la ca lu ko mate woon la mooy liñ dé li nga xam ne nii jëlaat nañ delimitation bi nga xam ne moo ëmb titre foncier bi ba ràññeet la ko ba jaawale mënatu kee am nga xam ne fu nit toll dana ko xam kon loolu xam nañ ko mm-hmm. loolu kon moom li ñu ñaan mbokk yi nañ ko bàyyee sëriñ bi di ko ci déglu ca bañ ko cee jiitu te it fépp foo xam ne nii dangaa jàpp ne sa bi ñu ndax ñaar rek a ci am nit ñi dañoo jox seen bopp sëriñ bi ne ko yaa ñu indi ak àllaaxira soxlawuñu wuñ suñ bopp dara kon dañuy ñaan mbokki taalibe yooyu ñu bañ a xëccoog sëriñ bi dara te lañ am rawatin nag la nga xam ne état da koo jox mu koy saytu kon loolu yaakaar naa buñ ko defee dana am solo ñu xalaat ne it bu jataay yooyu amee ñu toog waxtaan ko maire supervisé ko sous préfet ànd ci ci kaw li sëriñ bi bëgg ci ñun dana ko mën a am muy morcellement yi nga xam ne mooy am ci li génn titre foncier bi ndax li nekk ci titre foncier moom sëriñ bi moo ci am kàddu luñ ci war a morcelé bu nekkee ci toolu jàmm na ko bàyyi sëriñ bi mu natt ko ba noppi bu ko joxee mu xam nu mu ca dogalee mu ne noonu la ca dogalee loolu moom loolu moom moo ci doon sama wax li nga xam ne moo génn titre foncier bi da nga xam ne maire am na ci sañu àddu luñ ci war a morcelé lu ci nekk sëriñ bi loola dañuy ñaan ña ko doon morcelé nañ jaar ci yoon wa ñuy morcelé ay parcelles ak i tool def délibération ba wóor ne am na ñu xam loola maire yor plan bi ci biir commune bi loolu buñ ko doxalee dana am lu ñuy dimbali ci wàññi coow yi ci bare bare ndax morcellement moom plan buñ ko defaree ba noppi ab réserve dong ba lañ koo dindi war na jaaraat procédure morcellement bu njëkk ba ndax loolu it mën naa indi lëj goo xam ne ëllëg ka koy lijjanti da koy sonal rek ndax luñ morcelé ba mu nekk ci plan nga xam ne tey boo ko yóbboon cadastre wala foo ko mënti yóbbu la nga ca daggaat buñ ko yëgul ka ñëw bu gisee cosaan la cosaan la rek lay daal di jàpp kon loolu day bokk ci organisation bi kon maire la gannaaw bu sëriñ bi diglee li muy digle ba noppi na nañu dajewaat ci suñu biir ñu toog waxtaan luñ ci xalaat lu ñu bëgg ci ñun lu ci nekk ñu xalaat ko ndax lu ci nekk am na yoon kenn ku nekk am na fu liggéeyam tàmbalee am na fum mu yem la muy defit am na lum cay sañ am na lum ca dul sañ loolu nag buñ ko xamee gannaaw bañ xamee bëggu sëriñ bi danañ xam nuñ koy boolee doxee xëy na beneen bi nga xam ne danaa ko ñaan sëñ bi di ko sàkku ca tàmbali woon nañ ko waaye nag dafa am diggante bu mu dogoon te boobu ba léeg-léegi nit ñi danañ ma jox wax chef village danañ ma wax ma bëgg caa jóg jëm wante am lu ma xalaat ndax léeg-léeg nga jóg bëgg a defar loo xam ne danga koy defar ca la muy jur ci yàq ca ñoo xam ne yàq dong leen tax a jóg loolu da ciy daal mën a poto ca lépp nag loo xam ne mooy fas yéene yàq liggéeyu Serigne Touba tubaab Moustapha bokkuma ci kon loolu mooy lan mooy fii dafa amoon benn association boo xam ne dafay amoon loolu nag lañ ko jublu woon mooy mànkale bëgg-bëgg yi ba ni sëriñ bi bëgg ñu def ci dafa mel ne ci loolu lañuy ñuy doxe waan dafa am fu mu fu mu tage te la koy tàggante mooy ñun ñëpp ñu dajalawaat waxtaanaat suñu biir ah la ngeen cee joxe ñu bàyyiwaale ko xel la ngeen ca joxe ñun nag cam doon suñuy yittey bopp ñu koy mànkale ba mu doon benn ndax damay ragal ne mbooloo ñu toogee kee wax jëme fee kee jëme fi wax gan nga fa ñëw day jàpp ne jubóowuñ seen biir te ñun xam ne sëñ bi suñu bëgg sëñ bi rek moo war a doon suñ jublu luy defaral sëñ bi rek moo war a doon suñ jublu kon loolu moo ko waral kon nag association boobu buñ ci amee ndigal mën a toog daje ndax dama dul bëgg benn yoon ñu ne nañ ko daje ñu daje ko ñu ne dafa am leneen lu ñuy fexe lu bokkut ak la fi nekkoon loolu amul xam nañ ni ñi ci nekk yépp ndax am na audience boo xam ne kat bañ ca toogee muy kilifa réew mi dañ koo xamaloon ne ko Touba dafa nekk yépp genn kàddu la muy sëriñ ca loolu it loolu lañ gëm kon nak fi buñ ko fexé waxee na fi lay jono a fofa kon loola ñi ci ñaan nak buñ ci amé ndigal ñu ci dajalé dajalewaat waxtaan boole ko seen joxoñ ya ngeen di joxoñ ndax dafa mel ne ba fi sëriñ mi lu jógee yàlla ko suñu borom doli leer ca doli yërmande ca kawam ca amna num noso won no xamné doon nañ ca doxé no xamné amna fu mu ñu doon jëmé kon nak loolu yaakaar na buñ ko defaat danañu amal njëriñ ca loolu nak la tax makoy sakku moy mooy yi ci gëna xamna dañ ko xamul ndax mbir boko ko ba mu am solo am fu meuna a àggale jariñ ci réew mi yépp boko jariñewul ab diir nit dana ko keuf di dem ak mom nga nan lam keuf mako mom moom ca yow ya yor dara bañ xam ko ràññee ko xam la meuna a jur ak lam meuna jariñ ñu sàggane ko muy dafa am nosin wo xam dañ ko xalaton ci village yi waxon ko ba ca hiérarchie ba ca kaw ñom ñu nang won ko man sax bindo dal na ci benn memorandum bo yónnee ko ministre de l'intérieur xamna naa ci dara waaye nak dafa am lo ni ah ñu ko nangoo buñ noppee yaakaar naa boo ci jëlee ku mel ne sëñ moom bu ci waxee yow dana la am lu mu la ci mën a leeral waaw dafa loolu loola mooy lan dañoo daje woon ñu waxoon président am lu ñu doon daw ci ñu gis loola am ndax bañ dajalee ba def collectif chef de village Touba Mosquée ci njiital Serigne Mewnu ci ak nosu ca Serigne Mewnu mas ta def dara ci diisuwu ko nit ñi bañ ànd koo moom mu doog ko yëkkati ca kaw kenn ku ci nekk mu xam ci gëddaam jox ko ko xenn ku nekk mu xam ci àqam lu yitte tuuti tuuti dana ko séddoo nit ñi ca noonu lañ doon doxee doxin woo ñu doon seqal nag président ba fi njëkkoon nekk di maître Abdoulaye Wade moom lañ demoon ba àggoon ci dajale ko bañ dem sommet national mooy bañ dajoon ca Fesman ñu tëraloon comité collectif chef de village fii ba am récépissé ñaanoon collectif yëpp ñu def ko boobu ñun la ca doon suñu xalaat mooy commune bu ci nekk na def ab collectif ci biir muy ab association boo xam ne mooy lënkale chef de village ci biir commune ba yépp buñ fa jógee ñu dajale arrondissement bi collectif yi fi nekk yépp muy commune yépp ñu dajale seen bureau muy bureau local loolu am na loo xam ne liggéey su préfet ndax damaa ñaanal président jamono yooyu sax ne ko na nañu dimbali jax ay autorité muy sous-préfet ak yooyu comme même les associations à titre privé la waaye na leen jox pour ñu assister ñooñu ndax seen tutelle lañ buñ noppee ci arrondissement booba ñu dajale arrondissement yëpp def ko muy bureau départemental bu ñu dajee bureau départemental yëpp def ko muy bureau régional bureau régional yëpp dem bureau national kon ña kaw danañ xam ne ñi ci suufa leen fi teg danañ leen bàyyi xel ca ànd ba dana rafet ca leneen lu cay bëgg a dugg du man a yàq la fay nekk <coughs> wante loolu nag damaa dégg ca jamono jee ca yaakaar nañu ci bari bàyyiwuñ ci xel <coughs> mu am ñaaj buñ ñaaj ba ministre de l'intérieur bi fi jógoon xëy na bind accordé benn association boo xam ne da koo def moy ñu tuddé ko association nationale des chefs de village kon loolu nag mënta am ndax association nationale bala am entité yi ko seq yëpp dañoo war a ba def sen assemblée générale ñu xamné ki lañ jiital wante jekki-jekki rek cëri fis ñu dajé fa daal leen defal benn association association nationale des chefs de village loolu moom euh, warta mënta nek ca ñom bokkuñ sax ca ñi génné won levier bobu kon ay pexé ngay tambalé juddu di jóge ca kaw di wacc ñun ca boba danañ seuf nit ñi lo xamné duñ ko mëna atal kon loolu nag moo tax ma bëggoon di ci ñaan buñ ci amee ñu defaat ko sous préfet dimbali ñu mu tàmbale ci arrondissement ba ñu xam ko wante togg ko moom bu amee ci fii la tàmbalee woon ba la cay am am lañ bëgg a siif la loolu moo tax ma ma ci ñaan lool rek mooy nit ki dana yor dara loo xam ne ko am maa ngi jégglu nag ci guddal gi wante dafa am loo xam ne buñ koy wax suñ kilifa mu teew te waxuñ ko ci biir ñëpp toog danañ xam lenn moo teew ñi ñu doon soññi ci lool yi nañ xam ne lii rek bañ luy yàq wala luy nuru yàq moo tax boobu léegi woote wante ne buñ ci amee ndigal danañ ko defalaat dëppale koog li sëriñ bi bëgg bam aw yoon ndax ñun ñëpp sëriñ bi rek moo ñu tax a jóg moom la ñuy déglu tey moom lañuy ñuy déglu ëllëg amuñ beneen soxla bu dul loola kon nañu ngi sant ñëpp di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu sëriñ bi ñoo lay nuyu Cheikh Mahamadou Bachir ko te nga jàllale nu su nuyoo ci sunu kilifa gi gën a kawe nun ñëpp te teg la fii pour nga jottali nu li bëgg di la nuyu ci turu sëñ Cheikh Ndiaye nga xam ni moom la sëñ Ahmadou Mokhtar dénk Daaru Xudoos ak ci turu sëñ Ahmadou Mokhtar mi nga xam ni moom la fi nekk di la nuyu ci turu sëñ Moustapha Mbacke mi nga xam ni nii moom la seen bi dégg muy bind te mu jox ko Maawo Sall te Maawo am ngant jox kàddoom sëñ Cheikh Ndiaye mi nga xam ni turu Daaru Xuddoos ak turu guy mi laay waxee jow ñun dey duñ def lu la déglu rek amul benn soxla amul benn xalaat loolu ndigalu sëñ bi yow rek lañuy dégg lépp loo wax lu aju ci Daaru Xuddoos ak guy mbind na ko waxee dana ko ne def tey kilifa ñun am nañ suñu kilifa goo xam ne moom rek lañuy ñuy déglu ndax Maodo ñëwul waaye daa jox kàddoom sëñ Cheikh Ndiaye bi ñun ñëpp sëñ Ahmadou Moukhtar moo ñu yële sëñ Ahmadou Moukhtar nag sëñ bi lay déglu ak yow mii di ndaw ni ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp di ci dolli yi kàddu yoo xam ni kàddu bi lu war a am ndax ku jógee Daaru Xuddoos ñu jox la nga wax ci kuru guy mbir ak Daaru Xuddoos war ngaa joxe exemple exemple bi daal joxe nag mooy démb rek laay nun daal lépp lu ñuy def ci Touba yaakaar nañu ñun rek lañ koy def kon nag sëñ ah sëñ Muntaxa mii nga xam ne moom la yàlla teg te mu mat ko sëg te si gëlnu dañuy yee nit ñi bu am benn xalaat pour lu mu bëgg rek nu ne bu nu ko defee ne danañ texe tey danañ texe ëllëg te du am benn gàllankoor jërëjëf seen alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhamdulilah سيدنا ومولانا محمد المكيب وعلى اله وصحبه اذن الوالد التكيب نجم يبقى يجتهد بيكتي كابي ليو كابي تانتا كيغن يبقى يكوجي الشيخ محمد المنتخب من يحمل ما في جيم سريطوره di ñaan mu yàgg fi loolu te ànd ak bi ñuy def ñu def ko ci ndigal ak xalaatam ndax moom itam yëpp mooy dàkk bëgg Sëriñ Tuubaa te xam ne liggéey Sëriñ Tuubaa mooy ci taal bi ak njaboot bi loolu war bu dégg ci mu toll mi ngi xalaat di seet lu gën a baax lu gën a jëkk mu di ko wax kon nag ñu itam lii suñu war teef day sëriñ Mbàkke bu soo waxoon rek mooy lépp lu ñu sant wala mu digal ñu ko ko war a def daan o ko seet ba mu doon ñu suñ digg suñ borom ci la nga waxee ci sëriñ bi loolu la ñuy waxee ci sëriñ bi kon ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak ndax taxawaayam ci lislaam taxawaayam ci yoonu ko dem na sépp marché ne si amul génn judd amul gën a bëgg loolu liggéey sëriñ bi di leen nuyu itam ci turu Serigne Sidi Mbacke mu Cheikh Abdoul Ahad mi nga xam ne mooy jëwriñu Serigne bi te yàlla def liggéey bii Cheikh Sidi Moussa jëloon ko teg ci loxoom te lay nday ji di dëkk bi mooy commune bi la ca desaan bi village yi ba yàlla def Cheikh Sidi Moussa bàyyi ko fi Cheikh Mouhamadou Mountakha yeesalaat ko dëgg laa sa liggéey bi yàlla defee kon sëriñ si bi joxaatoon ndigal sëriñ Abdoul Ahad Kani ak sëriñ Amsa Diakhate ne leen ni ko Cheikh Mamadou Mountakha defee ni laaj daal lépp boole leen ba siiw lépp loo xam ne na ngeen koy def na ngeen di ci moom te loolu leen ci waxee mooy samay wax léegi rek ci wut. Mm-hmm. kon dañuy nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di rafetlu nag jotaay bu baax. ci ndigalu sëriñ bi ndax fii ñu toog fi la toog lu toll ci ñaari at waxoon ay kàddu dinaa ci jëm ci dëkk bi ndax dëkk bi li ko seq mooy ñëpp dañoo ne ci biir ñàkk bu nangu ndax Sëriñ Tuubaa moo fekk fu kenn mës sa moom fu kenn moom fu kenn mës a dëkk fu ñëpp mës a bëgg ci nit yàlla yi moo sàkk ba suñu doom may ko muy Touba kon képp ku fi dëkk rek la Cheikh Mouhamadou Mountakha waxoon nañ koy fàttaliku mooy nañ sàmmoonteeg war may dëkk bi te xam ne tawféex la nga dëkk ak Sëñ Touba kon ne ko kilifaam yee ko jëkk yëpp daan defee tàmbalee ci Cheikh Mouhamadou Moustapha mi nga xam ne mooy njëkk a toogee jataayu Sëriñ Tuubaa ak ab liggéey mag ak Cheikh Mouhamadou Fadil ñëw wëyal liggéey ba ba ab liggéey mag Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ñëw wëyalaat liggéey ba ba ab liggéey mag Cheikh Abdoul Khadir Mbacké ñëw ba ab liggéey mag mu wëyal liggéey ba ak Cheikh Salif Mbacké ñëw wéyalaat liggéey ba ba ab liggéey mat yàlla def nag li kenn mënutoon a ñàkk te kenn mësu koo xalaat yàlla def mu jeex ci moom mooy doomu Serigne Touba ci kaw suuf waaye nag Serigne Touba dafa di jukk ndax njabootam googu kat li ñu tedd tedd ak li ñu baax baax ak li ñu màgg màgg lépp nuru Serigne Touba Serigne Touba moom loo génne ci moom dara du ci des kon sëñ Tuubaa ma fi newoon démb léppi dox ba nëgëni moo fi nekk ba nëgëni yàlla dafa mu bàyyi ko fi ak Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ñëw njëkk ko wutu ci ay sagam moom itam liggéey ak liggéeyam ba liggéey bu mat ak Cheikh Sidou Moukhtar Mbacké ñëw moom itam di ñaan kii fi nekk di nga xam ne moo nekkoon seen seen jëwriñ di seen taalibe laxasaayu topp ci seen ginnaaw ba yàlla def ni agsi ci loxoom kon na ma ko ko waxoon keroog rek bu doon lu ñuy jaaye may doo ko jënde ndax dafa tërbiyu ba laq ngërëm ñëpp kon yàlla fi yàgg yàgg te àndal ñu te la Sëriñ Tuubaa waxoon it yàlla bu mu ñu dal ci moom sëriñ bi dafa waxoon ne woote loo nañ ma woote naa ñi wuy si ñu wuy si mhm. wàcc nañ ma ci ñu wuy kon tegaat ci ne ngeen xam ne yéesu leen ëpp leen gimi jàpp leen yéesu leen mooy ñëw leen ba ak may may loolu ñëw ëpp leen itam mooy ma ñëw ba dem ngeen door a ñëw gi muy jàpp leen itam mooy dajeeg man jamono bu noppi benn kon taw tawfeex la kon dëkk yi dëkk ci dëkk yi nag loolu mooy ndigalu Cheikh Mouhamadou Mountakha ndax fii da toogoon fàttali ko xam ne képp ku yàlla defal nga def dëkk nga dëkk ci dëkk bi war ngaa xam fi nga nekk lu mu doon war ngaa xam da ngaa am tawfeex waaye war ngay sàmmoon teg war mooy dëkk bi ndax xam ne sëriñ bi dafa wax ne. ومنفعا لكل هاد المسلم ومدفعا عن كل عالم دين كون ديك فينا خامني ني في اك جام يالا دي ييكتي كو كيب كو خني نيك nga في سخان بي نون لاي ديفي سيو واي نك نان خامني كيب كو في بيغ نيك لنان نورو لي في سين توبا بيغ سين توبا لي جيندي تريفي تا لورو ني في كو في مسا ديك te nekkee fi neen ku ne sëg du rafet wa fanzur kayfa kaana aqibatu mujrimin kon ak kayfa kaana aqibatu mufsidin kon ku ne ci dëkk bi war ngay sàmmonte war mooy Serigne Touba ngi ndax xam ne Serigne bi dafa waxoon ne bi may sanc dëkk bi yaa rekk a tax ma sanc ko mooy daw nit ñi ak daw li nekk ci loxo nit ñi waxit ne li tax ma sanc dëkk bi mooy li taxallumi wa taxlim kon dëkk bi dëkkub daara loolu nag lu àdduna xumb xumb lu jamono yàqu-yàqu war nañuy bàyyi xel la taxoon ñëpp gàddaay ñëw fi la taxoon nga gàddaay ñëw fi ngir yaakaar sëriñ Touba ndax moo waxoon ne Cheikh Abdoul Ahad bi muy woote nit ñi dëkk si Touba moo waxoon ne Serigne bi dafa wax ne koo fi sam xel indiwul soo xel daal mm-hmm. kon yi fi daje lépp génnul loolu mm-hmm. lu yaatu yàgg nag lu ne daa tàbbi ci biir ndax ñëpp xam nañ ne dëkk bi fu ne nit dafa gàddaane ñëw ngir yaakaar si xeetlu àdduna adduna wala alaxira ku ne nag aada ja nga bàyyi woon ci sa dëkk wala sa kër moom nga fi indaale loolu nag mën nay bàyyi xel kon ku fi ñëw war ngaa fexe ba góorgóorlu ba ba dugg ci dëkk bi aada joo indaale woon te méngoowut ak li fi Sëñ Tuubaa bëgg nga fexe ba sànni ko ci waaye ñun ñi am tawfeex juddoo fi dëkk fii war nañu góorlu ba ko bàyyi ko ci bitti romb ci dëkk bi jàll wala mu jóge ci bitti ñëw bàyyi woon say aada gëm ne fii boo fi dikkee dangaa war a mel ne nga agsi fekk fi lu loolu yàlla ñu ci mu sol loolu mat nay bàyyi xel bu baax matadi nit nag ak matadi doomu aadama loolu suñ borom ko bindee adduna waaye nag war nañu góorgóorlu ndax Serigne Saliou Mbacké mas naa wax ne Serigne Touba mas naa wax ne seytaan li naagu ne ci gàkkal ma ci yéen waaye ñu ngi koy jaar ne ci yëkkati gi yëkkati gi nag mooy saasu suñ bi santaan yi def day dugg ci xolit nit ñi di leen wax ne lii suñ bi santaan yi kenn mënu ko wala bu ñu ko mënoon lu ñu fi wut kon loolu bokk na ci pexe yi nga xam ne seytaane mu ngi ko yàqal bi nit ñi kon nañ góorgóorlu bu baax te xam ne dëkk bi ñëpp fi nekk leen ndax Serigne Touba woote te Serigne Touba. yërmaane dafa yaatu. nañ wàññi coow li tuuti sëriñ bi daa woote ngir yónnee ci noonu ku bëgg waxtaan da ngay génn ci biti rek lu sëriñ bi. dafa woote te mbiram xatul da yaatal ndax sëriñ Touba li mu wax ne maa ngi ñaanal képp ku gëm yàlla te aju ci man li ma koy ñaanal képp ku gëm yàlla te sëriñ Touba xatul ba muy ñaan itam yaa maalikal mulk yaa man jannaan xaw di irham jami'a wala kon Sëriñ Tuubaa génnewul kenn képp ku ko soppe tàbbi gi ci biir loolu war dëkk bi itam yaatoo nii kon nag sëriñ bi nee na mi ngi soññ ñi nga xam ne liggéey bi ci seen loxo la ko teg ñoom nañ xam ne responsabilité bi ñu leen dénk takkiliif la waa nekku tashrif buñ ci dénk kenn responsabilité nga yaakaar dara jara wala pouvoir mbirum Sëñ Tuubaa amul loolu am na sama kilifa gu bu baax ku gëm Sëñ Tuubaa ko daa wax ne pouvoir boo xam ne lum rëy rëy bu la borom ne indi samay yi doo doonte dara loolu du daraja kon dëkk bi benn benn daraja fi am benn pouvoir fi am mooy kii fi nekk Sëñ Tuubaa kon nañ xam ne ñiy dénk liñ leen dénk nañ xam ne du lu ñu war a puukarewoo du lu ñu war a damoo du du lu ñu war a toogee ci kaw nit ñi nañ xam ne ñoo war a nekk ndax sayyidul xawmi xaadimuhum nañ xam ne ñoo war a liggéey nit ñi te Serigne Touba loolu la santoon Cheikh Mamadou Moustapha ak Cheikh Mamadou Fadil ci ñu war a soññ ci yitte taal bi waxtu wala ma nekk lu ko njëriñ del si kon Cheikh Mamadou Mountakha mi ngi soññee bu baax a baax ca la kilifaam bi daa soññee di li fi Serigne Touba digle kon sëriñ Abdou Lahad Ka yow mi nga xam ne yaa ngi ci bopp bi ndax kon ci yow lañu koy tàmbalee ndax Cheikh Abdou Lahad dafa waxoon ne ay nit lépp luñ seq balañ ko balañ caa mën a jariñu jariñ ca faaw ñu lëkkale ko ba mu nekk gën boobu daana waxee ne kër sax bu bari dundu ñaaj kon yow mi nekk ci maire bi kon yow lañuy jiital ci ndigal bi kon yow itam yaa ngi góorgóorlu ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ci taxawaay bi lii la Serigne Saliou si la seere léegi doon la sëkk seere wa shahida shahidu min ahliha waaye kon loolu ak laxasaay rek la jërëjëf moom foo ko déggee ci mbirum Serigne Touba ak laxasaay la mooy gën a góorgóorlu waat ndax nit bu mat lu manqué fexeel ba mat kon yaa ngi ñi nga àndal te sëriñ bi dénk leen dëkk bi na ngeen gën a góorgóorluwaat dinaa ci jëlsiwaat ci li sëriñ bi wax na ngeen gën a góorgóorluwaat takku laxasaayu fexe ba li sëriñ bi bëgg ci dëkk yi mu di fa mm-hmm. te la ci jiitu mooy toppatoo taalibe yi ak njaboot bi di sonn ci seen yitte di leen diglu lépp kenn mënu ko saafara waaye nag fu taalibe jaaxle bu dikkee kenn warutu ci amul bëgg lu weesu diglu ko ne teg loo ca mën nga saafara ko loo ci mënul nag nga yéene ko kon bu jàllee chef de village yi ñëpp bàyyiwuma ci kenn ndax dëkk bi village yi bari na sëñ Saliou Sèye dafa wax ci tur suñu am suñu jaxate ñu tànn ñaari quartier rek ndax yooyu mooy yi fi jiitu mooy Darou Khoudoss Darou Minam ak Touba Mosquée ak Gouye Gui yooyu mooy quartier yi fi jiitu ñu tànn ko nag bu ëllëgee ñu tànn yeneen quartier ñu wax ndax xam nga ne lu mat lu jege eh, téeméeri village mënuñu wax ci benn jotaay waaye nag dëkk bi ni muy doxee bu kenn waxee dara rek yóbbaale ni ñëpp ndax li fi am solo mooy kaddu si bi ak baatam kon yéen itam yéen chef de yi ñu ngi leen di soññ bu baax a baax ndax ndigal ndigal lii sëriñ bi ko santaane woon moo santaane woon lii ñu di ko def ñetti weer. lu ci xaw a tardé léeg-léeg rek xam ngeen fii jamono toll laajut ay daje yu bari waaye ñetti weer yi sax sori sori na da dina nag nit ñi amul jot loolu lañ ci sédd te liggéey bi dafa bari waaye yéen itam dangeen di fexe ba ci diggante bi sëñ laat da ngay yeneen daje ci biir bu ko defee quartier yi dafa yaatu te am na ci quartier yu sori yoo xam ne mën ngaa dëkk ci biir dëkk bi sax doo xam ne quartier bu am na ci loolu nag yitte ndax boo demee ci dëkk yu mag yi mën naa am na ci dëkk yu mën a ñaar ci Touba boo xoolee mën ngaa génn benn dëkk boo xam ne rek capital na moo ëpp Sénégal gépp te teewul seen nosu ak seen organisation moo tax lépp di tegu ci am kenn ku ci ne di gis boppam di gis mbiram ca loola noseen woowu nag Serigne Touba dafa waxoon ne tubaab yi moo tax suñu borom dénk leen adduna nee na maanu bu gis ñoom moo tax daal di wax ne moo tax yàlla da leen may ba dañoo xam adduna ba luñ ci xamu de amul njëriñ waaye àllaaxira it da leen ump ba luñ ci luñ ci xam de amul njëriñ muy yaalamuuna zahiran min alxayaati dunia wa hum an il axirati hum xaafiluun kon chef de village yi ak délégué de quartier yi yéen itam amaan ngeen leneen ndigal lu bees ndax village bu ne ay délégué de quartier yu bari dafa ne ci biiram am na ci yoo xam ne daay gis benn quartier lu ëpp ñaar fukki délégué de quartier ni ci biir délégué de quartier yi kon ñoo gën a jege nit kon liggéey bi li seq mooy commune bi chef de village ak délégué de quartier yi kon ñoom itam ñu ngi leen di ñaan lépp luy déggati fii ndax délégué de quartier yëpp mënuñoo teew ndax xëyul ci kër gi sa umu sàll waaye bu ñu dematee lépp lu ñu fi déggee wala lu ñu fi tënkee nañ koy àggale ba si ñoom ndax kumpa bañ ndax ay nit tam boo leen jiitee nga teewal leen ci barab war ngay fexe ba kumpa bañ am sa diggante mm-hmm. ndax kumpa bu bari baaxut ak yàq-yàq ak liggéey kon ñoom itam nañ gën def itte ci loolu maa ngi nuyu sous-préfet di ko sant bu baax di maa woon ngir mu teewe ndax ñoom itam dañ ci am seen wàll boobu ndax lu ne dafa am lu muy doxee. kon am na ci loo xam ne wàllu état la état ñoo war di lijjanti nit ñi seen responsabilité ñu ko Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké di waxee am ci yoo xam ne itam lu ci àgg ci moom moo ko war a mën a lijjanti ndax civil du lijjanti moroom kon loolu itam faw ñoom ñu di ko bàyyi xel moo tax ci biir wax li danaa ci dellusi waaye kon li ci ëpp solo mooy chef de village ak délégué quartier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 ñu ngi ciy xalaat am na ci quartier yoo xam ne faaw ñu wut lu ma juróom-ñaar yi ñu saytuwaat ko xool ko recensé waat ko ko ci yoon ba lenn lu nekk ko moom ñoo xam ne kii waaye jàppante rek kalaamante yi ci biir njaboot bi lépp di lenn jëkk ko dofit kon loolu nañ ci bàyyi xel incha allah danaa ko wax sëñ Abdou Lahad Ka moom mi jiitu commune mu dajale chef de yi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 daa wax ne buñ doxaatee fii ak fanweeri at réewum Sénégal dana mat nangam million lim ko wax ne bu waaye murit danañ ci mat nangam murit yu matee nangam ci limite ñay màggal si boo ko nattee la sëñ bi waxoon dana dem ba ñiy màggat seen ëpp fukki million jëm kaw mu ne loolu nag buñ ko sóoraale wut nag ni kon war nañ saa defal Touba mbedd mu rëy moo xam ne buñ demee ba àgg ci jamono jooju dugg bi génn bi du jafe kon ñoom seen xalaat dafa jiit ji moom kon lépp loo gis ñu def ko rek am na lu tax waaye kon délégué de quartier yi ñu ngi leen di soññ ñu gën a góor góorgóorlu Cheikh Mouhamadou Mountakha joxoon na ndigal d'ailleurs du Safinou Amane ci ndigalu Serigne Modou Gam mu toll ci ñaari fii la ko waxee woon itam maa jàngoon leetar ba sëñ bi di jox ma joxoon leen ndigal ci ay tere yu bari ci dëkk bi tere ya boo ko sëñ bi defee ñëpp dañ caa maas yi di ko def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 waaye mën na indi yàqu-yàqu bu xóot goo xam du neex a lijjanti ndax ki jënd kër moo ko woon mm-hmm. yàlla def na ci tawfeex nag ndax Touba titre foncier la titre foncier moom xam ngeen lii daraja ji mu am kon ku fi am it dangaa moom rek sëñ bi bàyyee na ko waaye waxtu wu neexee sëñ bi mu dindi ko bu ngeen gisee sëriñ sa yo banque yi mu génne woon ko corniche bi loolu la ci doon bañ ndax nee na banque yi de ñoom ñi ko moom ñi ci ëpp ñu jullit te ñeneen yilif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 ak seenu góor ca gannaaw wax naa leen lu lu ne dégg ngeen ko waaye nag loolu amut solo ndax la ngeen def ndigalu sëriñ bi la jumaa ji xam ngeen ne ñoom moomuñ ko ku fi nekkal sëriñ Tuubaa moo ko yëlif jumaa ji sëriñ fi nekkal sëriñ moo yëlif jumaa ji mu nekk ci loxo moo leen fa tege baatam moo leen fa bàyyi kon sëriñ caa def wala ñu xalaat ci loxo ne suñu digal la di gërëm daayira Hizbut Tarqiyyah ci njiitalu Serigne Youssou Diop di ko sant ci taxawaay bu rafet ndax nii ko ni ma la ko waxee fàllu ba nga jotli ko taxawaay organisation bi lépp ci loxoom laa ko teg du def na ko ne leen ko Serigne Saliou daa waxee rek is isa ay qasatka xorubul daa fa nag bi ila amin summa nam Cheikh Mouhamadou Mountakha nee ñoom ay soldat lañ def duñ tànn diggéenam waa daayira raw du rayaxin ñoom itam dañu ay jàmbar xam ngeen ni mu demee ci yoon bi ni mu demee ci sëriñ bi waaye jaay nañ lépp jënd ko taalibe di liggéeyee sëriñ Tuubaa ci wàllu xam-xam te xam ngeen ne sëriñ Tuubaa léppam xam-xam la ndax dëkk bi ba mu koy sanc daa wax ne li taallum wa taalim kanzil kitaab wal xadiisu wal adab la jëmoo fiddati wala jëmoo saabu kon ñoom liñ féete dara ëpp ko solo Cheikh Mouhamadou Mountakha ñi fi nekkal sëriñ Tuubaa mashruucam bi gën a rëy muy naalam bi gën a rëy mooy université bi te seen loxo la ko teg te def nañ ci ba nëgë ni bu tabax yi àggee la programme ba la ñu war def lépp jiitu na kon ñu ngi leen sant leen gërëm ci li ñu liggéey Serigne Touba ci wàllu boobu liggéeyam daayira Safinatu Amaan tudd naa leen léegi ñoom itam al amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar ndax am na ci loo xam ne état mënu caa dugg ndax lu waaye réew mi tëriwu ko waaye lépp dinaa ci dellusiwaat tuuti ñoom itam seen taxawaay ñu ngi leen di sant di leen gërëm di gërëm Serigne Modou Lo Ngabou ci taxawaay bu baax ba di gërëm daayira Touba ca kanam ñoom itam nooru daari ni yàlla def na nooru daari ni sax maa ko ci bindoon mm-hmm. ngir ndax boo Touba ci kanam la lañ bind may nañ jiite leen nooru daari ni yàgg na 2016 wala 17 la fii ñu demoon sax ci saal bi ma toog mm-hmm, mm-hmm. ñoom itam bañ juddoo léegi yàggul waaye seen taxawaay ak seen yitte ak seen positif ñi ngi góorgóorlu ci dëkk bi la Cheikh Abdou Lahad Mbacké daa wax ne lu ne fàng diisu ko woon ko amu bët te ko amuti bët gerte woon dara la du gis di gërëm waa Xuddaamul Xadim ñoom it ci seen yitte ak seen positif ak seen taxawaay ak seenu jaayante ci Sëriñ Tuubaa ngir sàmm noonu noonu li ak mboolu daayira yëpp nag xam naa ñàkk ñu ma fàtte waaye xamul sëñ bi doon nag tudd géemu sol li am solo moy ni jeuf jëf ngir Sëriñ Tuubaa di yema seigne touba rek ndax sous-préfet ngi ni top ta buñu won wowoon gouverneur mu top ndax ndaj ma ñu fi njëkk def dina ba seigne bi jox ndaj mu njëkk ba ci jiti rew mi da teewe na ma ca top mo njëkk defaat ci ta jox ndigal Baay fali bo gouverneur dañ ko mu ñew kon loolu nag la Cheikh Abdou Lahad Mbacké daa wax rek da daa wax ne woo bañ daa woo Sëñ Tuubaa ci njaarim gouverneur di euh, commandant di ko mu leen di wusi neen leen tàggatal buur yi ñu leen di wusi te sañu ko bañ wallaahi kon loolu mooy li jël mm-hmm. ci biir wax ji euh, maa ngi diggalaat commune bi Abdou Lahad ndax xam ngeen nawet bi jub jub si na mu waxaat ak chef du village délégué quartier yi ñu gën a góorgóorlu ci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 بندار في نين تمنى فناؤهم عما قريب سيرة بإذن من كل عبيد سيرة <laughs> نيا نعم، توبا نعم، بي دانا جيخ سي ريو با جيخ تاك نيا نا بو ديمي با جيخ رك دانا دانا ديم با جيمي جامو سامي طالبي ño ño ño doxal lañ dal doxal kon reew mi nañ xam ne kenn du ko yilif te yaakaaru suñ tuwaa barke borom tuwaa billahi loolu rek suñ tuwaa wane ci xar ndax Daaru Manaan gii nga xam ne brigade spéciale bi fi Cheikh Abdoul Ahad Mbacké njëkk def fa ko def Daaru Manaan xam ngeen ne fa lañ doon visité Sëñ Tuubaa visité visité ngir bëgg ko song dëgg la alkaati ya ak soldaar ya ak espagnol ñëw di visite kër gi di ko tuumaal tey gendarmerie spéciale foofu la ne kon gendarmerie bi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 nañ xam ne loolu la ko suñ borom defal kon xam naa ngir bañ a guddal ndax wax toog saan jot na li ci des xam naa ne gis na ko àggale waat waaye ñuy sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm ñi nga xam ne ñoo wuy si di leen ñaanal fajuk aajo leen ñaan ngërëmu suñ Tuubaa ci lii ñu def ndax li ñu def lépp kat yaakaar ngërëmu suñ Tuubaa képp lañ ci dem te suñ Tuubaa moo ñaanoon ne waq di xawaay jëli si ne daamoo fii xidmati wahab lahum aaraamo tañ xam ne nag euh, liggéeyal Serigne Touba ci dëkk bi ñëpp la war ak Cheikh Ibrahima Faty daan wax ni liggéeyal Serigne Touba war na ñëpp te du wàcc kenn kon liggéey Serigne Touba mu ngir ndax fii gis nga fi ñoo xam ne wóor na leen toog bu baax sax mënuñu ko mënuñoo baax sax jataay metti na ci ñoom waaye dañoo jaayante te ku jaayante nag da ngay matal la nga la nga la nga jaayante wala la ngay séentu ci njëg doo doo ci jot